muy ko ràññeeku ci murite ak ci xasida yi di jaar ci moom di siyaar mbokk tali ba yépp suñu xaadim njuur ak mboole mbokk bi yi fi ne yépp suñu Ibrahima Gueye mi doon jàng léegi bis yi ñuy def muy bisi xasida bis yu am solo la bis yu am jeexit la bis la yoo xam ni réew nu ne li fi am ci jàmm ak ci ay yu ci bari jeexiti bis bi rek la bis yi ñuy def ni nga xam ne dañ fi yendu di jàng xasiiday sëriñ bi saa yu faratay sun borom yu jotee nu jooxe ko delsiwaat nekk ci te xam ngeen ne xaside sëriñ bi lépp tudd yàlla la kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat loolu nag jeexit ji ci ne yàlla rekk moo ko xam tudd yàlla képp bu bàyyikoowul ci sëriñ bi ku ne xam ne jeexitam ak nangu gi ci sunu borom def ak leer gi ci sunu borom def nga xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam àgg na ci wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy dund waaye am na ci ñoo xam ne dañoo dee nee na kii dund mooy kii tudd yàlla ki faatu nga xam ne xoloma faatu mooy ki nga xam ne du tudd yàlla wenn wenn benn saam sunu borom digle ko tagg itam ñi koy def والذاكرين الله كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا rawatina salatu ala nabi nga xane mom moy jaamu yàlla gi nga xamne sunu borom mo nu ko digal te ànd kook jaam ñi wax ne inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu xam ne moom day lu ñu nangu moom yonente bi wax na ne booy ñaan boo ko jiitalee mujje ko faw la ca diggante ba suñu boroom nangu ko salaatu ala di lu rëy te am jeexit ndax képp koo xam ne julli nga ci yonente bi benn julli rek sunu borom day julli ci yow fukki yoon yaa man yaquudu li musallin marra alayhi ashran qad tuniiru la jullik sunu boroom nag xëjul cib jaam rawatina mu def ko fukki yoon ci génn julli goo def loolu lépp nag bu àndeek ñu defe ko ci mbindum sëriñ bi ak xase xasaayidam yi nga xam ne yàlla da koo nangu qabila rabbul aalamiina kalimi suñu borom nangu na léppam bépp baat bu jaar ci xolam boobee rek suñu borom nangu na ko ndax xolub suñ Tuubaa ba dinaay wax ne mooy santralub leer yi nga xam ne lépp fa lay jaar ci leerug yàlla wajal fuyooda kalkali muniira quluba xisbika wa astianuura nga xam ne ñëpp foofee la ñuy tëbboo xol boobee nag lépp lu fa jaar dana ànd ak leer goo xam ne dana ànd ak nangu goo xam ne dana ànd ak barke boo xam ne yàlla képp moo mën a xam dayoom loolu nag nii nu koy jànge ci réew mi di ko def ay bis jeexit ji moom réew mi sax mënuñu ko xam bari na jàmm ju am ci réew mi bari na tawféex ju am ci réew mi te barke bis yii rek moo moo ko sabab kon bisi la yoo xam ni yu mat a fonk la yu mat a gën a taxawe la yu mat a gën a sàmm la yu mat a gën a sellal la itam fexe ba lu dul bëggug sëñ bi bañ ko rax ndax sëñ tuba kat lu ko waay mën a defalit daa war a fexe ba mu dëppoo ak bëggam Bàmba lu baaxul bokku ca loolu la sëñ Mbay Jaxate waxoon Bàmba lu baaxul bokku ca waxoon na ne sëriñ bi wax na bind na def nañu gis te digle na yii moo ko warkat wàcc na mosula mooy mosula fo waxam a gën waxi ku ne jëfam a gën jëfi ku ne waayam a gën waayi ku ne waayam ji dëgg nag du fo foo gis ku ne fi waayama muy foo ko nekk foppama bul gëm ni kooka waayama waayam ji dëgg duutu fo foo gis ku ne fi waayama muy foo ko xumaagama foo gis ku ne fi waaye ma weddil ndegam gis nga mu fo wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaag a fi ruus fo bamba wurus wu sell la waaye dërëm bu sotti la te ku ameb rax yëru la ab raxa bon day taxa fo wurus foofe nag la wax ba ne kon bamba lu baaxul bokk ca mi nga kon bis yi lu mat a sàmm la coono yi ñu koy defee xëy na bari na waaye coono bu ñu ci def rek njariñ li ak jeexit ci ëpp na ko rawatina mbindum sëriñ bi moom lépp day ab liggéey boo xam ne bu ñu nangu la bi jeexi bi xurmatil mustafaa man sirtu xaadimahu bi nazmi wa nasri sajaan thumma mizaana nga xam ne lépp liggéey bu yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam bu mu doon ko liggéeyal te yàlla nangu lépp muy buntub njub itam buntub jariñu ci suñu borom tabaaraka ko taala ndax mbindum sëriñ bi ñaari xeet la am na ci loo xam ni wet goo xam ni wetu xam-xam la ñu ci xame fi ñuy teg suñ tànk ak li ñuy jëfe ci diine wet googi gu mat a fonk la mooy xësiday xam-xam yi am geneen wet nag goo xam ne mooy xësiday tudd yàlla yi mooy xësiday salawaat yi ak yi nga xam ne moo jëm ci tudd yàlla ak tagg ko ak tagg yonente bi sallallahu alayhi ak ñaan ak jéggul waaye yépp nag bu àndee day maase di jubbanti wajaal xilaami wa midaadi haadiya hidayatan lil uqada ibadiyah di jubanti ba taxna kep ko xamni takko nak qasidam yi xasidaam yii te sellal ko boole ko tegg ni ko wara nga gis mu tegg ci yoonu jub di gëna bëgg lu baax di gëna bañ lu bon ko gis ñu la day jang qasida te gisoo mu jub bari teggin bëgg Sëñ jappal ne koko day jangantu rek way jàngagut xasidi mom moom ku taxoog mom te diko jang te diko selal sellal ko teggini yiñ ko wara jangé faw nga jup faw nga bëgg sëriñ bi faw itam nga bañ lu bon di bëgg lu baax waxtu woné waaye nak yoonu jëriñu ci nak moy fexe ba japp léppi sëriñ bi rek baña a genn wet dina koy misal ci ne ab murid mo buñ ko doon misaal ci auto mën ta ñak gasoil gasoil bi moy dundub xol bi te moy qasida yi nga xam mo qasida zikr la sëñ bi waxon na ne wa'lam bi anna dhikra qutul qalbi te nee kitabati dhikrun wa shukrun kon gasoil xol bi mi ngi ci xasida yi nuy jàng moo xasida yi yi nga xam ne mooy nuuru daarayni ak jaalibatoog mafatixul bishrek wakaana xaq nag yooyu noonu am na yeneen nag xasida yoo xam ne moom moom ak leer la koo xam ni mu ngi mel ne làmp boo xam ne da niital fi nga war a teg sa tànk mu ni wax ne kitaabati tubayinul furuda wa sunana alladi kafa tamrida te mooy xasida xam-xam yi nga xam ne nag mënta ñàkk ab oto bu amee gasoil bu doy di dox ci biir gu lëndëm ndax ku ne xam na ne yoon wi moom ku ciy dox du ci sa sago ngay doxe du sa vitesse su boppit ngay doxe sëñ bi nu xëcc noonu ñëpp ci doxub sëñ bi lañuy dox moom wax na ne képp ku ànd ak moom suñu borom danay xëcc ci moom ngay dox ci ab doxam booy dox ci doxub sëñ bi nag da ngay melni ku nek ci biir way rek def doxewoo sa sago yobbo sa bop waye nak aaje na nga defar sa sa xol bam deppok leeru tudd yalla yi ni waye aaje ni tam nga am lamp, bo xamni mo lay nital fi ngay fi ngay tek sa tank làmp yoyé nak moy xam-xam yi ak téré xam-xam yi nga xam señ bi fagul nanuko waxon na ne lepp li ngeen soxla ci diiné dina len ko fagul dina len ko bindal ba du ngeen soxlawaat leneen ñetteel ba nag mooy ab oto moom faw mu am ku yor laab gi di ko bijjanti te ma ab sëriñ ñett yooyu benn mën cee ñàkk murid bi faw mu amub sëriñ faw muy mu yittewoo wetu xam-xam gii nga xam ne mooy jàngale diine ji ak li nga ci war a jëfe te bi jàngal na lépp waaye faw itam mu am ab dog ci tudd yàlla ci diggante xasaayidam yi ak wirdul maaxoos ak mboolem tudd yàlla yi ne ci yoon wi jëmmi xaside yi nag ku ne xam na ne da barke bu rëy da cee la ci jiitu rek mooy tudd yàlla la te tudd yàlla moom képp dafa bari ab yool bari tuyaaba ndax kii tudd yàlla kooku sunu borom ci boppam dafa wax ne maa ngi jataayoo moom ana jaliisu man dakkarani fadkuruni adkurkum sun borom wax ne bo may tudd yow kep ma di la fatliku man kep bo may tudd yaag mbolo mi mo ànd ak mbooloo mu gën bi nga nekkal di la fatliku ak di la tudd so may tudd nak ci sa xol yow kep neena ma ànd ak ma ma nekk man kep di la tudd lolu ak itam ma'iyya bi mi def ak yow motax ruhaniya bu kawé dafa nek ci tudd yalla tudd yalla mom ci na mbolem xéti secret yek doxub gaayu ca ca la nekk ñaareel ba nag mooy xasida yi moom dafa bàyyikoo ca xolub sëriñ bu mag ba sëriñ bi tànqe ko ci biir alquranul karim wax ne fa min aayi mawlaahu tuxraju sellal ko itam ci mboolem lu di ay larax nga xam ne baat bu ci ne da ak leer la way kat yu ñëk ya ndax qasida yi bokku ak qasida yu ñëk yi ñu xamoon sëñ bi dafa wax ne ghayyabtu anzami ansaami ani taghazzuli bi dimani li matxe xayri mursali ghayyabtu anzami ansaami ani fuduli al yowma lillahi wa lirasuli mbolem du ay larax wala ludul nona da ko seppi ci bir mbindam mi ak waxam ji ba taxna muy lu sel lu lab lu kawe lol nak bu ca bolé mu tukhalé ko ci allahul mahfuz wax ne yanqulu khatti min al-lawh wa min qalamihi wa fi hurufi lam amin kitabati min lawhihi tantaqilu nga xane ne leeg mu wax ne baat yi ca allawxul maxfuus la jóge mu ne badi ak manami yi yëpp ca allawxul maxfuus la jóge léeg-léeg mu ne manam lépp moom maasit bàyyi ko foofee eh, boole ngi itam muy ay jëmmi leer ni ma koy waxe lu bare bare bari xasida yi ay jëmmi leer lay yoo xam ne bokk sëñ bi liggéeyee ba noppi ca jëmm joojee moom la xasida gii nga yor di junju loolu lu neex a dégg la ndax ilayhi tayibu loolu borom moo ko wax baar rek boo wax rek day yéeg dem faras fa sun borom tabarak wa taala budé dee jëmm ju bu wax ju baax day amé jëm jëmmi leer jo xamni nit yalla yi dañ koy gis mu leer nañi rafet lool sun borom dal ci def ko wax bu wax ju safan ba nak day amé jëmm ju ñaaw té amé xet gu naqari ñen ñi diko xeyntu ci nit yalla ñen ñi di gis di jallok mom cheikh muhiddin ibn arabi dan wax ni amna soxna su masa nekkal Fatima bintul Musanna ci ñi ko tërbiye la bokk waaye nee na daana ko wax ne man soxlawuma ku may yónni ndax man fatiha fuma ko jànge day doon jëm jo xani fu ne man naa ko faa yebal ci kaw suuf kon jëmmi ay leer la waja li wax ne wajal tawaalifiya anwaaran anwaran tanur saatiatan bi hurmati an-nuril munir gina amna qasida yo yoo zintu makatiba تدوم راصده كل معاد للجنان قاصده أنا ديفرنا اي قصيده يو خامني داني فوكلو ني نونو يالا تاي فينال نونو غا كون لو كوكو جيم لا خامغا زنت مكاتب تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا خام كوكو جيم لا جو خام دا ام لومي ليغي ام لومي جيف léegi nag jëm yii nu yor xasida gi nga yor mooy junj jëm jëmm jooje léegi nag jëmm yooyee nag jëmm yu sell la yoo xam ni kii jàng xasida gi waxtu wu ne euh, ruuxu xasida gi du teqali ko moom ci kaw nag muy sàmmonteeg teggin yi ci kaw muy sàmmonteeg teggin yi laaj boo gisee iblis ñi mi wut mbindum sëñ Tuubaa nga xam ne moom da koy daw moom hërëba min chiaria ibrisul marid nga xam ne moom bi da waxane dhaqa daqa mararata kitabatiya fala yanhuni yadhra wa anni gafala man da mos metit ak tiaf ko eh, ma nakar wi ne ci wi nga xane mom moko jublu ci ci mbindum sëñ bi sëñ mët lim job dagana daana wax ne ginaaw sëñ bi wax nañ dafa am ku ñew ci mom ne ko man day sama sëriñ damay jang xasidi wolof yi tem aaye ma ko ne ma del jang xasidi yi Tuubaa yi nee na loola jaaxal ma ndax man dama xamul xasida yi ñu tegg Sëñ Tuubaa nuñ koy aaye nit sëñ mat la bi ne ko loolu de li ma jàpp mooy sëriñ bi dafa wax ne sama xasida yi buñ koy jàng mi ngi mel na nga jël weñ gu di ko dóor iblis bi ah, Jóob Dagana dañuy wax ne ginnaaw sëñ bi daa am fu ñëw ci moom doon ko jàmbal ne ko man de sama sëriñ damay jang way yi ni def di ko war a fal di ko tagg sëñ bi dem ne may yow yemal ci tassine nee na loolu jàng dem ne ko loolu day li ma jàpp ne mom la moy li sëñ bi da wax ne tassine yi fuñ koy jangé mi ngi mel ne ko jël bañ ko ri di ko dóor iblis ne ko iblis nag bañ googu dama ragal da caa son motax tax ma féet leen ci wolof yi bëgg ngeen ma ko مرخونا نروم لي واخني بيزي دوار لي كتاب تبشر المشفع وعند ابليس تفوق مدفع يعني مورا كنو تي ابليس مو مو مو مو مو باسي كون جيمي خجيري دابا ام ليغي بوري بو ني ديف موتاخ دي لو يالا تي وات ييب ناخ سي كيو دار دا فيسبوك ci àddina ji wax ne suñu borom defal na ko ci bu kawe njortam yaa jaaxidan xattiya fawqa danni dégg nga maanaam parce que suñ bi bind moo xam ne suñ fa mu koy bindee foofee nag koy yëkkatee mu jëm arsi nga xam ne min nii lahu qasaidi wa rufiat lil arsi wal kursi wa hiya nafaa kon bind mu rëy la mu mata war maanaam mat a wegg la mat a fonk la mat a jox gëdd la ak yitte ëpp naa foye ëpp naa itam dégg di ko jàng ci yéene ju xajam moo tax ki koy jàng dam ci war a fas wërta weesu ak jaamu yàlla ak sàkku ci ngërëmal yàlla mbégum sëriñ bi képp diiru fas leen yi xew léegi loolu ñu ne maanaam boo ko jàngee am nangam loolu moom moom mën naa xajabal yéen ku ko topp ku ko topp mën naa kon am na nag ay yoo xam ni moom lañ ko war a jàngee teggin yooyu dinaay wax ne jëmmi xaside yi ginnaaw mooy dund ruux di dund te ku ne xam na ne jëmm ji moom am na lu muy dundee te mooy lekk yi ñu xam nii waaye wax bi moom li muy dundee mooy tudd yàlla lépp lu jege yàlla te loolu mooy xësit yi be kenn la ci di ñam wu neex fi moom waaye nag ku ne xam na ne boo doon xewlu foofu nga raxas sa loxo yi ndax boo raxasul loxo yi ñam bi du moo lay doon waaye microbe bi tax sa loxo nga lekkaale ko yooyu moo lay doon loolu mooy tolloog yéene ji nga xam ne moom lañ ko jàngee am na yéene ñoo a day óolee ko yonent bi ko jàng mu di ko móolu xasida yi nit dana ko jàng mu ko móolu ndax yéene jëm koy jànge du la ci am ba a tax ci hawtina mbiɗo waɗuneyta fofnete fas kam ɗo aduna o ndena ko warne ɗaɗa huɗum so juwaɗen so juwaɗano waxne aduna dama ɗon dàq dima dàq dima dàq ba mujj nee na suñu borom dima taxawal dima taxawee aduna ñu wóoruma ci wet yépp te ku bëgg arsi fi man da ngay jéggi aduna moom waaw aduna ji nag dinay wax ne ñi nga xam ne ñoo sant sëriñ sant sëriñ sant sëriñ bi ak ñi jëriñu ci sëriñ bi ñëpp rek ñi jang qasidam ye ñi sant sëriñ sa o oh, sant ak ñi waxtan ci moom ak ñooñu bu len yalla dimbul wut aduna joju a len a ndax sëñ tubaa bu ak li adduna ji mom ñu xam te sëñ tubaa kep nak mo am solo ci mbir yi lo loo wax ba ak bu dar ci mom aggagoo ci dara boo waxe ba ak mom nak ba ak mom ba ak mom dara rewutu la ci kaw suuf kon Jangan mi aaje na ju sel aaje na pas-pas itam bu sel, aaje na itam kenn ku ne xam nga ne am na lu sa ruux attan fi ne lekk yi rek am na loo xam ne boo nga day ëpp sa bi nga am ci sa bir nga xam man la na sonal ci dir bu yag xaside yit non la mel kenn ku ne amna lu ci lu sa ni koy misale amna ño xamni mën nañoo toog fii jàng fi ay jaalibatu yu bari te du leen def lenn am ñoo xam ne sama classe gi benn jaalibatu bu ñu ko jàngee mu doy leen sëkk duñ ca mën a teg leneen ndax ndab yi daa wuute ruux gu neen ak lam attan kenn ku te nag moo tax li baax mooy jël loo attan sëñ mat lëmin ngay jëmooy mu baax ma dara wax ne yi tax a àgg yett la mooy yenu la nga àttan tey doxe na nga mane tey dëgërloo suñu borom tabaaraka ko taala Sëñ Tuubaa daa wax ne bu ma kenn xarab na ngeen xarab lawbe bi lawbe bi yet bi yet ndab yi mooy suñu borom bi defar ruux yi ruux yi mi ngi mel ne xur rek xur wu ci ne bu jëlee ci ndoxum taw bi ba feesal du ca mën a teg dara anzala min as-samaa'i maa'an fasaada tawdiyatun kon bokk na ci teggin yi mooy di ci jël lu yem ci yow maanaam kenn ku ne war naa am dog bu muy jàng ci bis bi waaye dog boobee bariwaay bi amu ci solo la ci am solo mooy sell ga te dëppook sa jëmm ndax kenn ku nekk am na lu gën a dëppoog moom am na ñoo xam ne salaatu al nabi moo gën a dëppoog seen xol am ñoo xam ne salaatu al nabi da leen a gaaw tax mën a yóbbu foo xam ni day duñ mën a jëflante ak nit ñi am ñoo xam ne istigfaar lañ gën a maneel am ñoo xam ni dégg nga xasida yi sant yi lañ gën a maneel kenn ku ne nag day seet lu mu gën a dëppook moom rek mu ne lekk yi adduna yi xam nga am na ñoo xam ne ceeb bëgg nañ ko am ñoo xam ne ceeb baaxul ci ñoom manam de man leen a faat léegi buñ ko lekkee mooy ñi am jabeet ak nangam moo tax kenn ku ne kon ak li gën a dëppoog jëmmam ak xolam ak ruuxam te luñ ci jàng li nga xam ne nag buñ toogee ci bis yi moom gis naa ne lu way neex mën na koo jàng waaye nag li ngay saxal moom la ci gën mooy nga am ca ndigal am ko ci ndax xasida yépp suñ bee ko daa joxe daa ci joxe ndigal suñu Abdourahman mu baax sëriñ bu baax mais ndeysaan yal na ko yàlla dolli leer man xasida yu bari ci moom laa daal dem laaj ko ko te boo ko laaj dana la jox ndigal ma nga eh, kon daal loolu moo sëñ sëñ Moustapha loolu moo doon jotaay bi amoon naa ci yéene lool di delloo sant sëñ Moustapha mii nga xam ne moom yàlla def mu bokk ci nga xam ne eh, moom dañ leen di ñaanal bu baax yàlla gën leen a dëgëral te gën leen a kàttanal bis ba ma njëkkee dégg am njàngam laa ne njàng mi de borom xolo ko jàng booba giseegun ndax jàng xolo koy def ca dëgg-dëgg mooy tax mu mën a àgg ci xolu dégg nga beneen xol bu ko aw làmmiñ képp defee mbaa kàddu gu neex du weesu nopp yi waaw bu ko xol jàngee nag xol dana ko yëg loolu nag sëñ sëñ Moustapha yàlla bu ko dara xajamal ci yow Ah, yàlla bu ko dara xajamal ci yow ak sëñ mam góor suñu mbokk mi ak mbokk yëpp ñoo ngi leen di siyaar alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw xam nga lii moom mooy mooy li ma doon junj rek mooy sëñ tuwaam mbindam fam ko bindee rek foofee lañ ko yëkkatee yóbbuwaat ko ci aras maanaam fa la jóge waaye fa lay delluwaat jokkoo la goo xam ni gu gu gu gu dara duxut digganteem ak aras la mooy li mu wax fii warfan li arshika walil kursi nadmi hada loolu moom ba muy ñaan waaye mujj na wax li mu wax ni wa rufiat lil arshi wal kursi yi xam nga loolu moom moom mujj mujj na leer am na yeneen bayit yu gën a leer yoo xam ne wax ne moom fasaase am na foo xam ne sax dafa wax ne sama alluwa jii muy bindee daa janloog aras mel ne seetu ci moom loolu maa ko wax nag maa ko ci wax maa noonu la demee laa bëgg a wax daa mel ne seeta ci moom ndax ginnaaw fa lay jóge te fa lay fa lañ ko daal di yëkkatiwaat mu yóbbu mu dem fa moo tax mbind mu sell la wax ju sell la wax ju leer la wax ju am tawféex la yoo xam ni barke bi dégg nga yàlla képp moo xam moo moo toll waaw ba tax na kon loolu rek la da bay di eh, di xaw a junj ci li ma yaakaar <laughs> ndeysaan mi ngoog mi ngoog eh, jërëjëf jërë ngeen jëf ndax yàlla ndax yàlla ndax yàlla